bi nga xam ni moom la ñaan ñi war a waxtaani pour tënk rek ñu comprendreul soxna xale la boo xam ni xaritam moo ko andil ndaw si Mohamed bi mu ko andilee ndaw si ni ko tabaski day jànku miin daan doole la tabaski ba tabaski lay ñibbi mais moom ndaw si dafa wax ne bu dee xëy bu dee xëy day ànd ak xale bi ci place bi muy xëyee ndax place ba am na appartement xam nga léegi presque place yu bari day am toilette et cetera nee na mu seetlu ndaw xale bi bu sawee ba pare. Mhm. bu tuuree ndox ba pare. saw mi day xeeñ. nee na foofu la bàyyee xel xale bi. Mhm. ni ko yow damaa gis ni boo sawee. Mhm. sa saw mi day xeeñ. loola dal mu ni ko dara. mu ni ko ndax da ngay boo parfois da ngay seetlu ni am na luy génn ci yow lu weex. mu ni ko waaw. nee na ci la ko yóbbee ci benn médecin. bi mu ko xoolee ni ko yéen ñaar toog leen ñu waxtaan maanaam ndaw si génn xale bi génn mm-hmm. mag mi njaatige bi ne fa mm-hmm. nee na bi fi njaatige bi ndekee ne fi nekkee ci la ko laaj mm-hmm. ni ko ndax kii sa doom la mu ni ko déedéet daf may liggéeyal mu ne ko dama lay conseiller nga delloo ko ay mbokkam ndax xam na góor lu yàgg médecin bay wax loolu uh-huh. ni ko xam na góor lu yàgg nee na bi ñu àndee ak xale bi mu dem këram mu jox ko mu lekk dalal ko ba mu dal mu ne ko damaa bëgg ñu waxtaan kañ nga xam góor mun ko xaw ma góor mu ne ko kon naawoo woo sa tante nee na mu ne ko ndax sa yaay xam na ko mu ne ko déedéet mhm. ci fin bi nee na bi ñu ko ko nax naxee nax naxee nax naxee nax naxee ba ndaw si wax ni ko fi ma doon liggéeyee bu njëkk mhm. lañ ma ko defee waaye fekk na sama far wa nekk dëkk ba moo njëkk yegg ci man mu ne ko ndax sa yaay yëg ko mu ne ko sama yaay yëg na ko nee na mu ni kon na woo yaayam uh-huh. parce que tantam la bëggoon a woo parce que parfois yaay xam ci doom loo xam ni uh-huh. du bëgg kenn xam ko dëgg la mu woo yaay ji ba sonn jotu ko mu woo tantam uh-huh. nee na bi tant bi ñëwee ñu wax wax wax na xale bi xale bi weddiwaat xale bi nanguwaat weddiwaat nanguwaat est-ce comprendre nga ñu ànd xale bi dem bi xale bi demee ñu woote jaay jeeg mu ne ko xam ni jaay kii boo leen ko dóoree dina wax ci tënk daal dem nañoo dem dem dem ba mujj xale bi moom da koo deseloon xaalis mu laaj ko xaalis mu ne ko noonu jamono ji yoruma xaalis mais fen du mois dinaa la ko ko parce que day ñibbi nee na mu jekk ba si àgg ñu ko xale bi sax nee na sa jëkkër moo ko def nee na mu woo jëkkër ñu ànd dem fa mu ne ko déedéet waxuma ne mosuma leen a wax ne ne moo ko def ñu wax wax wax mu ne ko yaaka def mu ne ko noonu waxuma ni yegg na ci mun daf ma daan raay ñu ànd bi ñu paree ñu moom dikk moom mu bind plainte bi yóbbu police. ku bind ndaw si. yóbbu police. jël convocation bi jox ko délégué bi délégué bi ne ko damaa bëgg ñu waxtaane ko parce que ñoom bëgguñu mu siiw. délégué bi baax waay. voilà nee na bi asamaan setee ñu ni il faut ngeen ñëw délégué bi daal ni ah nee nañu ngeen wuy si police. Mm-hmm. bi ñemee ñu déglu leen ñu ne ko yow plainte bi da nga koy dindi ci sa tur. ndax accusé wu la sa jëkkër la accusé dëgg la ah. sa jëkkër na def plainte bi mu ñëw d'accord est-ce que comprendre waaw dëgg la nee na ñu ñu déglu leen bàyyi jëkkër ji woowaat groupe bee déglu leen nee na ñu toog bu bis rek ñu woo jëkkër ji woo nda jabaram ni ko man dañ maa convoqué léegi ni man naa ñëw waaye nee nañ du ma yàgg nee nañ bi ma ñëwee ñu ne ma dañ laa plainte parce que famille diw moo la plainte yi da ngaa yegg seen doom mhm. jàpp jëkkër ji tëj mhm. yóbbu jàllale nañ ko ba moo ngi ndungu siin lii mooy wax ji ci tënk pour ñu comprendre loolu Mouhamed waaw man nag njaga euh, sama xel mën nay wër fu ne mhm. mais fii dafay gàtt <laughs> njaga fii sama xel dafa gàgg. waaw taxaw nga ci doo daal. waaw taxaw ak feu. boole koog benn gendarme ak policier taxaw. yor seen i sifflet. waaw taxaw boobu laa taxaw. parce que li tax ma taxaw taxaw boobu mooy njaga mbir bu déparé ci ak fen rek. Mm-hmm. merci pour nga canaliser ko pour nga xam fu dëgg ji féete dootul yomb. dama leen doon bañ a waaw waaw waaw waaye man reportage bi may déglu dama ni man nit bu xasee ba fen fenaat fen bu mu ko waaw loolooy problème bi. dëgg la xam nga tey. Mm-hmm. ci biir wax ji da ngay daaneel ma ne ndeysaan waa jëde ñaaw yaay. Mm-hmm. waaw ci sama xel rek loolu laa njëkk a wax. dëgg la parce que xam nga bi fi mu jaarale wax ji ak fi mu ci sama xalaat bu ndaw ndaw ndaw doon laaj damay wax ni ñoom dañoo mer ngemb attaqué ndaw si ak jëkkëram waaye bu dee xale bi fi mu jaar yëpp nee na faram bu nekkoon dëkk ba tourné ni fi mu doon liggéeyee tourné waat wax ji di tourné di tourné ba egsi ci jëkkëru ndaw si guerre la boo xamante ni nekkatul waa ji waa ji daa nekk ñaaw daa nekk ñaaw bàyyi rek ba dugg wala ñaaw nday ba dugg mais man tey sama gis-gis bi ma ci njëkk am mooy xale bi bi ma xamee ni fenkat la ndaw si itam waroon naa teel a tegi tànkam njaga parce que amut sens dèjà indi lu ko problème li olof doon wax naan euh, nu mu tudd coow du yam ci bopp borom borom xale bi du sa doom sa jànk la dañ leen a boole sàccu la jëlul ci yow wóoluwoo ko waaye waaye njaga jànk yi duñ jeex du mala la nga dem ma jël keneen mu jeex tey jii xoolal ana xale bi continué wul du dund mhm. bu dee daa jubadi continué wul du jubadi mhm. léegi yow nga commencé war a yóbbul dépense war a yóbbul añ koo xamul kañ la war a génn bi ci des mooy la nga doon far ba akus néew far naa mujjee siiw siiw ndax léeg-léeg nga ni jigéen am sa borom kër mun la daa tukki foog ni tëj gi du yàgg ñu bari duñ xam ci koñ ah, bi ñuy dem di dem di dem di dem ba xëy bés ni tey dem am kum fay seeti ca prison ba lu mel ni visit ni waaye jëkkëru diw ji gis naa ko fi bari nañu tàggoo woon ni dem nañu Maroc wala dem nañu si gaal gi la ñu dem waaw walaay nit a leen seeti rek fekk leen fa mais dama koy man dam da man euh, dal na ma ay yoon euh, géejawaay laa wax géejawaay damay laaj benn benn benn benn góor ma ni waa mais diw yéen ana diw am kuy doog a génn prison ni ma daal boo bëggee gis oustaz daal pour ma tënkal la lu gàtt koo gëj a gis wallaay wax na dëgg déggoo ko téléphone xamoo ci lu mu ne mu ne ma boo demee 100 mètres wala bii nekk fii nu mu tudd Euh, camp pénal camp pénal waaw mënuma boo demee di ko fa fekk mais man jaga gis nga gis nga gis nga bi xale bi commencé parce que xale bi effection la amee effection mhm. urinaire mhm. loolu lañu wax mhm. moom la xale bi amee parce que comme mu ngi génn ay perturbances dafa am kon tey ku ko wàll loolu tey daf lay leer ne ku ko ko wàll tey du benn yoon du ñaari yoon te njaga moytul ma xale waxuma xale bu am fit gis nga am fit ak wóobat du ñu benn man nañ ko ko bañ a wàll tamit foowee boppam sol lu tilim euh, bari na yu koy andi tamit. waaw mais euh, tey tey tey am na ñoo xam ni dañ naan la euh, ces anglais da koy indi. am ñoo xam dañ naan la sol nangamu jàmbur daf koy indi. Mm-hmm. mais quel que soit alpha comme médecin moom njaga mm-hmm. ni yàlla amee doole ci ay ndénkaaneem. Mm-hmm. mu mën a xool nit médecin laa la wax. ni la bul wóor wéroo yàlla nangul ko te médecin du ci am bàkkaar nga xam ni kon médecin war naa foor. xaw ma ndax xam nga laa taata lil maxluqi fi maasiyatil allahu wa rasulu axaqu an yarduhu in kaanu aw in kuntum muminin njaga yàlla dafa ni boo demee ci laxdor yi daf lay wax ni topp yàlla gën topp ku dul yàlla bu fekkee ay jullit ngeen yàlla digle koor ni fara ni kutiba aleykum siyam nga jàkkaarloog médecin mu ni la hee nga ni la bayk mun la wéeroo bul woor yàlla ni wax na dëgg comme moo la ko wax moom médecin dëgg la bul woor yàlla du la ci bindal bàkkaar te médecin bi du am bàkkaar kon war ngaa xam ne médecin am na doole njaga foor na léegi bu médecin bi ne kii kat delloo ko ay mbokkam bu doon may ndaw si coow lu gàtt gën coow lu gudd njaga dama lay jël nànk delloo la sa ay mbokk ndakaaru nag mën nañoo tànn jànk waaye dañoo am défaut yi fay dernier mois mhm, c'est vrai mën nañu tànn jànk waaye dañoo am défaut yi fay dernier mois dinañu fexe ba dernier mois ñu avance la mhm. ñun ñoo mel noonu parce que bu ñu leeree ni da ngay dellu dëkk ba li ci des dañ naan heure bu ñu amee te nag gis nga ku ci moytu wul àqu wala ñaanu ku ñu tooñ ittani bu sabaal muubiqaat mm-hmm. bokkoon na ci duaa ul mazlum ñaanu ku ñu tooñ léegi nag ma daaneel mm-hmm. xolo fi ndaw si jaar yëpp dem bind plainte njaga yoon yoon yoon yoon ku la ni yoon daa see wax na la dëgg xoolal stratégie bu civilisé boobu jote jotewoog ndaw si sa jëkkër retourmal on est waroo plainte ndaw si bi jëkkëram ñàkkee plainte rek na am gën waroon na ci gën a def nank waroon na ci gën a téye parce que nag attention de yoon du bàyyi ku def du téye ku deful. Uh-huh. <laughs> xaw ma ndax dégg nga ma. dégg naa yoon du bàyyi def. du téye ku deful. <laughs> waaw fa laay daanele. Mm-hmm. comme ça fi may daanele mooy lu dul ni nit am branlon. Mm-hmm. boo xamante ne am na nijaayu procureur wala nijaayu gendarme wala nijaayu nangam wala xale yu jigéen yi nga xam dañuy xeesal ba rafet nekk diriyanke ci koñ bi léeg-léeg. Oustaz Mouhamed Mbaye neexu leen te ñu am càmm ñu yaama neex ci police bi wala ci gendarmerie bi mm-hmm. bu fekkent am na nag koo xam ne boo ko jàppee ci yaama neex ay mbokkam bu ñu jugee nga doyal sëkk yow policier bi ko jàpp wala yow gendarme bi yow ndaw ndaw sey mujjee am problème am na ñoo xam ne amuñu ginnaaw boo leen jàppee dugal leen prison amul ku leen kaasal amuñu fu ñuy plaider mais Fall Ndiaga mi boo ko téye woon tey foo jëm balaa ngoon ah ba ñoom colonel génn mm-hmm. ñoom diw génn procès bi la ñuy topp ba nit ñépp ki ko téye mais comme kii xëy na amul ginnaaw wala amul ku ko taxaw wala extra extra loolu mooy waral coow yi tey léegi nag luy solution kee téye nañ ko. baa nga dëkk ba. jërëjëf euh, Oustaz Mouhamed euh, reportage bi.